mbokk yi safoo seen télévision suñu label TV ñu ngi leen di nuyu xawali maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alioune Gueye di nuyu mbokku téléspectateurs yu suñu label TV di nuyu suñu gan. effectivement suñu gan googu tey jii di euh, monsieur Mody Guiro di euh, secretaire général bu CNTS di confédération nationale des travailleurs du Sénégal ñu lay wax euh, daal la jàmm suñu plateau. maa ngi leen di fay di leen gërëm aussi si seen invitation bi leen ne ngeen jot li aussi suñu seen directeur. doomu réew mi ci liggéey bu rafet bu muy def di nuyu téléspectateur yu ñu seetaan yëpp di nuyu liggéeykatu Sénégal yëpp ak kilifa yi Sénégal diine ak euh, kilifa aada yi. très bien Awali mu mel ni am nañu nataal boo xamante ni euh, defal nañ ko suñu invité. waaw ñu seetaan ko ak Khalifa Ndiaye laataa ñuy soobu ci waxtaan. mu doon ñaareelu vice-président bu conseil économique social et environnemental moo di Guiro di ko am tur lool ci biir syndicalisme fii ci Sénégal moom mi mooy sax njiital li ñuy dippee confédération nationale des travailleurs du Sénégal CNTS muy kuréel gu mu wéy di jiite donte sax am na ab fippu gu kii di Cheikh Diop dal di jiite woon xëccoo ci diggante ñoom ñaar ñi moo tax sax ci atum 2001 kuréel gi dal di xaaj ñaari bànqaas ñu mën a wax tamit ne jaar-jaaram ci biir syndicalisme moo tax kii di moo di Guiro ñu tabb ko fee ca conseil économique social et environnemental njiital CNTS gi nekk tamit njiit ci confédération syndicale internationale CSI moom mi mu jëriñ ci ab xarañteem ci kuréel gii di institut de prévoyance retraite du Sénégal IPRES waaye tamit ca caisse de sécurité sociale ñaari couleur yi yëpp mu mës faa doon lii di président conseil d'administration ci atum octobre 2022 ginnaaw bi mu jaaxle ci situation sociale bi askanu Sénégal di dund moo di Guiro dal di artu ci jafe-jafe yi nga xam ne ñooy yoot lii di liggéeykat yi muy fàttali njàmp teg lii di confédération nationale des travailleurs du Sénégal di CNTS ba taxoon mu bëral ay xalaat ngir rek puus kilifay réew mi ñu gën a taxaw ci nu mu gën a gaawee ci jafe-jafe askan wi waaye it liggéeykatu Sénégal toog nag di biral bépp lépp jafe-jafe ak càkkutéefu ñii di liggéeykat yi ci secteur wér-gu-yaram njàng mi mbay mi ak napp gi ci wàllu dem dikk bi ci liggéeykatu hôtel yi ñay yëngu ci wàllu defar lii di ñam doon tey yëngu-yëngu bi gën a fës bu di Guiro mi di secretaire secrétaire généralu CNTS di amal bés bu nekk di Guiro mooy tey ganu l'entretien bu Hawaali ak Alioune Guèye di ko jaajëfal moom Khalifa Ababacar Ndiaye mi defal mu ñu defal nataal suñu gan bi tey gii di moo di Guiro alors euh, monsieur giro ndax euh, gis nga sa bopp ci nataal bi ñu la defal. voilà ah, doy nataal bi doy na je pense li ngeen wax am na je pense que mënuñu weesu foofu. Mhm. très bien léegi waxtaan dañ koy tàmbaleek actualité bi ngay euh, vice président conseil économique social ak environnemental. Mhm. ces derniers jours yéen a nekk au devant de l' actualité. Mhm. d'abord ñu bëri eh, dañoo wax ni conseil économique social environnemental amul njariñ yàq xaalis la yow looy tontu ci loolu. waaw xam nga conseil économique sociale institution la institution de dialogue et de concertation bu joxe avis amul rek Sénégal am na fépp dafa nekk euh, institution conseil économique social Sénégal en miniature la te ñi fa nekk ñëpp quatre vingt pour cent yi am nañ parcours foo leen nattee. bu dee syndicat yi bu dee politique bi bu dee collectivité territoriale yi bu dee mbéy mi bu napp gi bu dee aar bi euh, bu dee euh, notaire yi bu dee avocat yi bu dee sëriñ si donc lépp a ngi foofu donc dafa nekk Sénégal en miniature te euh, li ñu ko defee mooy nit ñi di mën a waxtaan ci li ñu yaakaar ni mën na nekk njëriñ pour réew mi joxe avis avis yi ñuy joxe nag xëy na foofu la ñu war a teg sunu baaraam mooy effectivement conseil économique social pour man am na njëriñ parce que avis joxe ci mën na def autosaisine comme mën gouvernement mën na ko ne réfléchiral ci lii xam nga tey ñu ngi waxtaanee affaire rémunération ci fonction publique muy sujet boo xam ne état bi ci boppam boobu ba léegi mi ngi ciy dugg nit ñi amuñ satisfaction mais dafay nekk loo sujet yoo xam ne mën nañ ko dénk conseil économique social. ne lii kat problème la nan ngeen ko gisee waa conseil bi waxtaanam du yem rek ci moom day seet ñi ñi Sénégal ñi ci mën a wax yëpp mu woo leen loolu nag du feeñ day interroger ñooñu ku ci ne wax sa xalaat bu paree jël taataan synthétiser joxe avis donc muy kuréel goo xam ne amoon na avis ci sama gis-gisu bopp euh, am na solo trop li ci des nag mooy. politiciens yi nga xam ne ñoo jiite réew yi ban ban ban ban njàngat wala ban utili ban utilisation lañ def ci at yooyu xëy na foofu du suñu coobar parce que da ngay joxe. Hmm. waaye xam naa ne liggéey bii ni ñuy jox at yi ñu jox moom am na importance trop. parce que en tant que journaliste. Uh-huh. su ngeen demee mun ngeen recueillir at yi ngeen xool ko. parce que ñenn ñi naan amul njariñ euh, dañoo jàpp ni njiitu réew mi. daanaka dafay caser lu ñuy woowee ab clientèle politique. waaw man xam nga dugguma ci domaine politique parce que politicien politicien man damay seet te li nga xam ne li institution mën na ko indi réew mi mais euh, débat politique bi boo ci duggee ku ci nekk ak fa nga fare. Hmm. fa ngay waxee kii mën na ne baax na kii ne na baaxul bon ça c' est dañu case ay politiciens kooku c' est possible c' est parce que politicien politique bu ñu defee seen institution aussi c' est sûr et certain daañu ñooy tabb parce que hmm. le chef de l' état c' est au poste euh, civil et militaire boobu la ko constitution bi jox kooku moom c'est sa responsabilité ñun amuñu possibilité dañuy ñun dañuy désigner ñu dem mais désignant bi ñu def suñu organisation moom moo koy moo koy parene parce que aussi euh, ci représentativité bi ñam am lañ fay nekkee di wax aussi li nga xam ne foofu moom mooy jëriñu liggéeykat yi essentiellement parce que domaine boobu de compétence boobu lañ gën a nga nekk deuxième vice-président ci conseil économique social et environnemental ngir askan wi ngir ñu xamul nan la bile bànqaas di doxee. Euh, conseil économique sociale et environnemental ni muy doxee d' abord décret moo koy teg président mooy nommé ki koy jiite ki nga xam ne ñoo fa nekk aussi président moo leen di mais ñi nga xam ne comme ñun ñi bànqaas yi ñu jógee président moo leen jël. ci seen taxawaay waaye aussi ci seen si euh, seen xam nu ñu wax représentative ci seen doole ci branche boobu ñu nekk donc bu fekkee ni jël nga syndicat ñun dañu tànn parce que on est la première force syndicale du Sénégal ñu ñoo ëpp doole ci syndicat yi nekk réew mi natt nañ ko def nañ ko avant loolu sax ñun la woon mais ba ko nit ñi contesté aussi ñu nattaat ko yàlla def na ñun ñu organisation bi nga xam ne bi mooy organisation bu ëpp doole ndax ba ñu nattee ki nga xam ne moo topp ci ñun presque doublé nañ ko ki nga xam ne moo toppaat ci moom presque quoi triplé nañ ko keneen presque quadruplé nañ ko kon yàlla moo def loolu ñu nekk mais teewul ñun rek nekkuñu fa euh, ci aussi yaatal ak ci équilibre je pense ñeenti organisation je pense ba juróom ñu ngi ci biir conseil bi euh, bu fekkee ne dañu natt Euh, ñi nga xam nañ ñooy bureau bi parce que dafa am bureau am président am vice président am deuxième vice président et cetera dañ koy tànn ci maanaam organisation yi di xool aussi ci organisation yi ñu ci am taxawaay am représentant mais aussi ñi am euh, li nga xam ne peut-être mën représentant au niveau national ak li ñu war a indil parce que liggéey liggéeykat yi am nañ doo importance patron yi am nañ importance <coughs> collectivités yi am nañ importance yeneen secteurs yi am nañ importance mais équilibre boobu waxtaan la bu ñuy def entre kii mais aussi proposition lay def pour assemblée bi ak pour que conseil bi conseil bi adopté ko hmm. voilà bu ñu ko defee nag day am aussi euh, conférence des président am euh, da am bureau d'abord bureau bi mooy élaborer euh, calendrier yi ordre du jour bi et cetera ce les sujets ak ak sujets yi ñu war a aborder thèmes yi jox ko conseil des présidents conférence des présidents aussi am na maanaam président am nay commission commission mu ne am na président am na am na rapporteur euh, bu fi ni conseil aussi daal bindu ci biir commission yi nekk ku ci nekk nag war nga bind au moins ci ñaari commission noonu lay conseil bi di doxee buñ ci waxtaanee ba d'accord donc buñ ubbee session bi woo conseil ñu ñëw commencer liggéey ci selon les thèmes qui ont été arrêtés ngeen am coppite njiit Idrissa Seck joge ci conseil économique social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo ñëw seen jàngat ci loolu. waaw am jàngat bi c'est très simple je pense que ñoom ñu ay doomu Sénégal lañ les hommes euh, les hommes partent les l'institution demeure institution bi moom dafay toog nit ñi dañuy jàll ñu ñëpp fi ñu toog ni euh, saxuñu fi dañuy def su suñu mission bu mission bu jeexee bu dem ñaan yàll rek mission bu ñu dénk ñu def ko ci anam yi mu gën a rafetee. jóge fa aussi ak ni mu gën a rafetee man si secrétaire général de la CNTS aujourd'hui keneen mën na toog sama place. Mm. donc ku nekk sa mission da koy doxal donc président Idrissa Seck ñëw na euh, dañ ko fa tegoon aussi parce que président moo ko fa nommé nekk fa au nom du président de la république président de la république nga am coobareem bu désigné keneen aussi indi ko fa dañ koy nangu. ban bilan ngay def. ci euh, Idrissa Seck ci bopp conseil économique social environnemental. moi je man maay def bilan Idrissa Seck. mais vice président kan du président mais. du wala sa gestion nan nga gisee woon sa parce que du dugg ci loolu parce que du ci bi laa koy waxee parce que dama nekk responsable xam naa sama responsable te xam naa ko dama nekk ak samay naatango bi ñu def. buñ koy tirer aussi peut-être comme politique ensemble mais moi je ne rentre pas dans ce débat mm. de politicien mm. je pense que il a été un président que je respecte bien. Il a fait ce qu'il a à faire, son, sa mission est terminée, il est parti, que nous respectons aussi parce que Abdoulaye Daouda xam nañ ko. Au-delà de leur politique en tant qu'homme yoo xam ne rek am nañu euh, am nañ sen euh, nu seen capacité donc de diriger ces institutions là. xam ah. nga demee d'autres mën nañ de euh, Mody Guiro fan yii daanaka li ñu la daan gën a gisee. gisee félicité aussi Daouda pour Daouda Abdoulaye Daouda sa nomination qui vient d'arriver euh, en tant euh, eu euh, comme ni ñu ko waxee plusieurs portefeuilles ministériels un grand commis de l'État mais Mody Guiro dañ la daan gën a gis au devant de la scène mais ces derniers temps gisatuñ la comme <laughs> ni ñu la daan gisee ndax poste vice-président bi nga am conseil économique sociale ak terrain syndical bi mënoo boole ñaari. non donc nee da nga ma gisul nee yow gisuloo ma <laughs> bu ne gisatuñ la. je hmm. pense que ma ni ma fal ñu ngi gis parce que man loolu laay wax toujours nit ñi dañuy juger alors que yow ñi la fal ñoo ñoo am possibilité xam li ngay def ak ñoom. Hmm. mais moo di bi wax yow en en permanence n'est-ce pas aux côtés de ces travailleurs sax bu ngeen may woo sax ñoom laa nekkal j'étais dans une réunion où il y avait les responsables donc euh, sur ce plan ñu ngi def maintenant. je pense nit ñi dañu war am jàngat xam nga environnement économique social de adduna bi dafay changer syndicat yi aussi seen stratégie ak seen doxalin day changer euh, am nañ ci période Covid aussi euh, ak impact yi mu def ci population yi. les mm. crises sont là euh, l'inflation la déflation également au niveau des des entreprises maanaam crise bi nga xam ne mi ngi am ci réew mi mi ngi laal aussi liggéeykat yi te. li ci ëpp aussi ci à part certains secteurs yoo xam ne dañ ñaxtu dëgg dëgg dëgg parce que seen secteur la mooy l'éducation la santé le secteur public parce que euh, dañu war am un secteur public de euh, à la nu de qualité hmm. mais à la à la disposition des populations et accessible également aux yoo xam ne liggéeykat yi aussi dañu war am seen ak ak seen yelleef à part secteur yooyu pratiquement yeneen secteur yëpp difficultés yi ñuy rencontrer donc mënuloo ko boole ak comme on le une confrontation Covid bi ñëw solidarité national moo ko moo fay taxaw parce que boo demee ba crise bu mel noonu ñëw mënuloo dem di naan da ngay da ngay créer des d'autres difficultés parce que bi entreprise yi am na secoué nañ leen am na leen dal ñu ñoo njëkk dem ci président bi mais pour ba mu amee li ñuy wax aussi mooy suñu responsable c'est pas du ñaxtu rek waaye di gàttandu parce que ñun ñoo njëkk dem ci président ne ko ah lu tax loolu am c'est parce que ba ñu amee rek patron yi ba ñu njëkkee ñoom mooy commence faagaagal liggéeykat yi maanaam dañ leen di dàq euh, mooy secteur bu ndaw hein bu kenn xamul pratiquement liggéeykat boobu ba mu ñëw ci man xaw ma ko xawuma xaw ma ko bokk mais dañ ko jox sama néew woo ma wax ma ne ma sama patron kan nee na dix mille la ñuy jox li ñu doon fay dootuñu ko fay ndax Covid bi dafa ñëw xam nga ne lii musiba la hmm. alors ci doon nañ dem seeti président bi alerte yeneen camarades yi ñu dem seeti ko ne ko bu ñu jëlul bu ñu ko kattanduwul musiba day am c'est pourquoi mu jël la ordonnance bi mu jël mu njëkk a jël mooy ordonnance bi nga xam ne day protéger liggéeykat yi pour que trois mois yi ñoom bu kenn dàq donc soo nekkee situation yi di ko gérer mënuloo ci boole leneen tu préserves d'abord parce que la première revendication pour nous et pour moi personnellement c'est l'emploi parce que liggéey xëy mooy jox nit ki dignité fekkee ni amuloo xëy wala nga ñàkk ko si dignité day wàññeeku donc lépp loo xam ne li war nañ ko def pour que doomu aadama liggéey mu mën ko préserver dañ ko war a def donc jóge ci situation yooyu nag léegi ñu nekk ci période yoo xam ne ba léegi économie mi ngi commencé jóg ndànk-ndànk mais euh, secteur yu bëri aussi ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi ñu ngi vivre de difficultés parce que bi ñu yaakaar ni relance am na. indépendance totale amagul donc mais situation bi amee aussi ak crise bi ñu gis ni population yi ngi koy sentir population yi liggéeykat yi donc combat yooyu doo ko gis au niveau national mais c'est des combats qui se font au niveau te travailleurs buñ amee seen combat yi wala seen situation yi ñuy vivre responsable dañu war a dañu nekk seen wet mm. donc xëy na li ngeen di gis nag mooy si amee les grandes mobilisations et ni def les grandes mobilisations su ngeen ko seetu année yi passé c' le secteur de l'éducation c' le secteur de la santé qui se bat toujours et récemment le secteur des camarades des parce que c'est la situation de ces travailleurs là salaires yi jóge ci ay inéquité yi am dans le traitement salarial au niveau de l'État parce que fonction publique oui ah, ci ñu lañ nekk ah, xam nga point de presse yi yëpp ci ñun lay départ ñëw donc ce matin Oui, on Mais ce pas la visibilité qui est importante, c'est l'efficacité et les résultats. Et ceux qui sont dans tous ces combats savent très bien que le secteur général la CNTS, la CNTS elle-même est à ses côtés. Ah oui? Ils à, à, côté. Donc, euh, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que am na secteur yoo xam ne ñu ngi xeex dañ leen di wax euh, gunge leen jàppale leen ñu am ci résultat résultat yi am nag doyul parce que boo jëlee secteur éducation am na ñoo xam ne am nañ satisfaction mais am na toujours banque pot une portion boo xam ne amagul satisfaction maanaam si tu prends les décisionnaires qui sont là également qui sont dans des situations extrêmement difficiles et d'inéquité parce que liggéeykat la ñu jàngalekat la ñu mais euh, position de décisionnaire bi ñu leen teg day am toujours ay avantages yoo xam ne amuñu ko bataille boobu day day dañ koy poursuivre ànd ceeg seen organisation ànd ceeg syndicat yi ñu dool mais boo jëlee aussi en même temps secteur de la santé di nga gis ni les fonctionnaires de l'État euh, yokkal nañ leen mais am na dans la périphérie des gens yoo xam ne qui sont des contractuels qui sont le même travail que des fonctionnaires de l'État ñoo bokk lu ñu liggéey di xarañ aussi comme ñoom di sacrifier comme ñoom mais en même temps un retour avantage yooyu ñële am amuñu ko donc ce combat se poursuit et ñun ñu ngi seen wet parce que yaakaar nañ ni te liñ mën a wax mooy c'est de combats euh, légitimes hein et c'est des combats qui sont légitimes les revendications sont justes et légitimes également donc ñun dañ leen di encourager de leen di jàppale mais di jouer aussi la nga xam ne li mooy courroie de transmission ak euh, de plaidoyer entre ñoom ak état bi parce que aussi loolu yëpp war nañ ko jël en charge bu ñu yaakaar ne aussi euh, ci suñu gis parce que on est responsable que état bi deful tara parce que état bi aussi depuis combat yooyu ngeen wax yëpp l' état a fait des efforts particulièrement pour les fonctionnaires et d' abord pour les enseignants parce que c' était une revendication sur euh, la révision du système de rémunération parce que bu fàttalikoo bu fàttalikoo revendication boobu au départ jàngalekat yi pale mu indemnité lañ doon wax indemnité de logement indemnité de ceci de cela mais ñu ngi leen di yokkal mais centrale ñun ñoo leen nii ñun ñoo ni la question se pose en termes de révision du système de rémunération parce que rémunération bi ñu doon la fonction c'est une rémunération qui n'était pas juste et équitable dafa am ñoo xam ne ñi bu ñu amee doolee mun nañ leen defal dara am na ñoo xam ne mënuñ leen defal secteur bi ñu nekk duñu organiser wul wala amuñu doole boobu alors ba ñu defee loolu ñu commencé def ay jéego y eu des pas dans ce sens et récemment il de cela quelques années avec Abdoulaye Daouda Diallo d'ailleurs que nous remercions parce que était le ministre des finances ci la ñu vraiment augmenter réellement les salaires des des enseignants def nañ ci loo xam ne jéego yu mat euh, ba kenn merul tout le monde veut être enseignant aujourd'hui mais mu am ñoo xam ne ba léegi seen situation réglé wul mais ba loolu amee lañ ne aussi eh, pour chef de l'État écoutez les fonctionnaires de l'État ne s'arrêtent pas aux enseignants et aux gens de la santé le secteurs le, la fonction publique c'est tout un ensemble vous avez l'administration euh, centrale ou des gens euh, broie du noir vous avez des secteurs primaires déjà, on ne peut même pas de, salaire à l'époque. parce que liggéey bi des na daal. liggéey bi des na ngir gën a ñoŋal nekkinu. no non parce que da ngay am ingénieur bu nekkoon ci ministère la primaire yooyu muy agriculture muy élevage muy feneen comprendre jàngalekat bi commencé bi commencé te ëpp ëppale ko salaire. mooy équité boobu ngeen di wax. waaw loolu xam mooy li wax. léegi nan mën a def léegi nag yooyu ñu corriger ko. ci la état bi uh-huh. jël mesure. Dadi, sur le l'instruction du président là, que nous saluons, parce que vraiment, des, ils ont fait des efforts énormes. Voilà. Euh, notre salaire de, 80, de 300 000 à, à 80 000 francs. 80 000 francs, bañ ko maa ngi ko dama dem di di di di revendiquer pour que chauffeur administration parce que dañ ñëwoon ci man ñu dawal chauffeur administration yi daan na ñun suñu prime de suñu prime de risque bi ñu am c'est depuis ap depuis ay dans les années soixante la ñu ko def muy soixante mille francs par an mosul bouger et quand j'ai été voir le président la République fekk na ñun ñu ngi waxtaan affaire salaire waaw ci la ci la ñu am ni ma koy ñuy poser problème mu ne non may leen ñu àggale li ngeen ñu tegal ba pare parce que foofu l'État a fait des conse des efforts yokk salaire fonctionnaire yi de la hiérarchie A trois cent mille à peu près à la hiérarchie E à quatre-vingt mille francs te chauffeurs yi ñoom ñooy hiérarchie E alors donc muy effort bu mag boo xam ne bi kenn xaaru ko woon en fait mais bokk na ci loo xam ne li war nañ ko mën a considérer comme après les enseignants les secteurs de les autres secteurs de de de la fonction publique effort yi ci état bi def war nañ ko mais. Uh-huh. xam ni aussi état bi ñi ñaxtu actuellement. dafa nekk lu normal parce que ñoom ak seen ay collègues ñoo nekk. li ñuy wax sax dañ euh, yëf yi dafa am euh, maanaam boog xaajaloo léegi lan lañ mën a def ba équité daal di am les travailleurs de l'administration ku euh, mooy loolu ci ci koor yi ñëpp nekk daal di yam même salaire xam nga boo jëlee par exemple dañ naan diw fonctionnaire état la par exemple fonctionnaire la quoi statut fonctionnaire la ñu ne kii dafa nekk contractuel maanaam dañ ko finir contrat boo xam ne bi ci biir structure état bi la nekk mais contrat la am mais pour pourtant ñoom ñëpp même liggéey bi la def kenn sax kenn ki mooy ëpp performance keneen ki waaye lëkkale am moom mënu ko am foofu la problème bi nekk. Hmm. donc ay collègues dans le même site di moo tax ñu ñaxtu nañ leen leen defal ndàmpaay yu gars yi am nañ ko am li mooy difficulté bi difficulté bi nekkul feneen boo jëlee euh, santé. ñu ñi nga xam ne ñi jox joxe nañ am na ñu ñi yaakaar fonctionnaire jox nañ leen mais am na ñoo xam ne amuñ dañ naan euh, seen statut kuréel gi ne hôpital bi ñu nekk wala structure bi ñu nekk moo leen war a fay. am na yu ñu war a def ci yemale leen war a fay donc ñooñu puisqu'ils font le même travail il faut que état bi trouver solution pour que structure boobu mën a remplir remplir euh, gap boobu parce que bu ñu ko deful ils vont continuer également à revendiquer. moo di giro ku la tudd sa xel dem ci syndicalisme. yaa ngi koy wax léegi euh, yaa fi xeexal euh, liggéeykat yi lan moo la bëggloo syndicalisme. bon eh, syndicalisme nag ku nekk sa destin wax dëgg yàlla ndax man ba may fi ma doon dem pour liggéey pour liggéey moom fa yóbboon man dama démissionné di wuti xaalis waaw mais parce que xamoon naa sama métier xamoon naa ko et cetera en tant que jeune euh, technicien ma am ay offre d' emploi. fu ma dem rek ñu ne ma ñëwal mais fu ma dem rek lu ñu may jox ma ne leen doyul wut dem kii ba ma dem gis euh, entreprise gënoon makki Sénégal ma am fa yaakaar daal di fa dem ñu jël ma j'ai pas chômé benn jour ñu war a jël ma euh, avec aussi un profil un nu benn plan de carrière amoon naa plan de carrière bu bu leer. boobu ñu ngi woon ban jamono. boobu c'était en 84. na xaw ma sax ndax am na ñoo xam juddu wuñ fii donc euh, quatre-vingt la sax parce que ba ma demee boobu euh, ñu jël ma mais bañ ma jëlee daf ñu waxtaan ñu war a def yëpp mais six mois mais kër gi ba ma fa demee y avait tellement d'injustice et de de violation de droits te man aussi euh, nekk bu justice injuste bëgguma ko man fu ma fekk injustice daal dama koy xeex man noonu la amee donc euh, mu ñëw rek sama gars yi ñu ngi xeex foofu benn responsable bi fa nekkoon mu mu ñëw parce que amoon naa amoon na ay promotionnaire yu ma xam man laaj leen ñu wax ma rek ma sóobu ci waaw ñu ñu daal daaneel waa sama xel nekk woon ci ci nekk syndicaliste mais mag ñi fa nekkoon donc kii. man fekkewu ma sax mag ñi fa nekkoon ñoo ne bon bureau bi bañ koy def ñoo nañ ko ci dugal kenn ne nañ ma nañ ma def ci kaw pour ma jiite kenn ki daal ne non amagul protection buñ ko fa defee dañ koy dàq eh, donc voilà un peu ma ko wax yëpp quoi xëy na. <laughs> temps bi duñ ko may temps bi loo ci def. waaw ñu dugg noonu la noonu affaire bi ñëwee quoi. Hmm. noonu la affaire bi ñëwee ñu dugg ci parce ci àq aussi boobu ba léegi ñu ngi ci. kanam syndicalisme barki démb ak démb ba tey yow ban gis-gis nga ci am. je pense syndicalisme d'abord li ci nekk da koy bëgg man gëm naa ni jaamu yàlla la boo ko defee mu set waaw euh, nga def ko bañ a lekk euh, alalu doomu jàmbur yi alalu liggéeykat yi bañ a jaay sa ngor bañ a bañ a lekk alalu nga taxawul et cetera daal maanaam boo ko defee. te ku ñëw aussi noo ko nu mu la fekkee nga ànd moom jàppale ko te yàlla tax loo am bokkook ñoom aussi te yàlla tax bañ a bàyyi leen xam nga loolu daal gëm naa ne ku ko def yaa ngi ci jaar. lu bees li ñu xewal ci léegi nag bon maintenant euh, nit ñi mën nañ wax loo xam duñ ko maîtriser aussi dañ ko voir dañ ko gis de l'extérieur parce que nit ku nekk loo loo nu mu tëddi loo màcc rek moo ko xam nuñ koy tuddee lu ci moo ko xam. maintenant lépp lu ciy ñëw na pour man lu la ci dab rek. la mu saf ko yàlla daf loo ci am daf lay dab. d'accord yow da ko def jaamukaayu yàlla. waaw mais loo ci loo moo ci am daf daf lay dab parce que doo ko du loolu moo tax nga jóg. daf lay dab parce que euh, télévision la ñuy waxee man fi ma commencé ñi ma seetaan xam nañ ma xam nañ sama jiw xam nañ nu ñu mel pour juger ñi ma nekkal tey aussi mën nañ ko xam ñi ma nekkal bitim réew aussi mën nañ ko xam donc je crois que li mu boo ci duggee aussi. non sama jaamu yàlla mais da ngay neme dëgg aussi waaw des deux côtés muy ci patron yi muy ci liggéeykat yi muy ci bañ a def démagogie parce que bëgg nit ñi ànd ak yow du tax nga wax leen lu mënul nekk man duma ko def man daal mun naa ñàkk nit ñi jàppati sama dëgg ndax dëgg yàllaa ko moom waaw ba te yàlla du jeex. waaw dañu xewal mais boo ñëwee daal pour ma wax la dëgg rek pour ma nga nekk ak man wala naa ma. soo ma ni mën la demal ma léegi li ñuy mbubboo syndicalisme ngir def engagement politique wala sax activisme yow noo ko gisee man du loolu man bokk ma ci loolu je pense que ni le choix doit être euh, nu mu tuddati doit être le booy dugg ci dara dara la leer rek waaw na la leer du wala nëbbu wala ko mbubboo non non non pour man gëwuma la waruñ ko def man samay camarades ñu may déglu parce que si ce plan ñu bëri ñëw nañ gis ma pour du men dellu man leen non mënu ko man li may def dama koy def su ma ko bàyyi su ma war a def leen dama koy bàyyi waaw en tant que secrétaire général la CNTS. Mody Gueye kon syndicaliste à vie. non pas je ne yàlla moo xam destin xam nga boo ne da à vie suba am ñeneen yaa ko yàlla moo xam nit ñi mais fi ma toll yow nii naan da ngay bàyyi da ngay def lii def la seen li ma yenu maa ko xam. li ma yoonu daal mënuma ko boole problème politique. waaye gisagoo li war a tax nga bàyyi syndicalisme. non parce que dama am mission boo xam ne dañ ma ko dénk su ma ko bàyyi mën naa def leneen mais actuellement vraiment boolewuma ko ak loolu. nekkul sax sama xalaat. Mm-hmm. gisoon nañu dama leen nëbb ah, ay kamaa ñëwoon nañ def ah, ça ça ne date pas de maintenant. parce que da ngeen di intéressé ma pour nañ présent je parce que li ma yenu il faut ma joxe ko ba pare. ku mel ni yow est-ce que mënuñu ko woon gis te pencu ndaw réew ma nga xeexal liggéeykat yi. comment ku mel ni yow est-ce que ñu ko woon mën a gis assemblée nationale nga teewal fa les travailleurs. man gëm naa liggéey liggéeykat war nañ mu a assemblée nationale. mais bu fekkee sa parti moo la on a des camarades à l'assemblée nationale. ñoo xam ne ñi dañuy ñafe. boo jëlee sa Alassane Ndoye sa la def na il est dans un parti politique mais assemblée nationale nekk y a d'autres camarades dans des partis la ñu nekkoon nekkoon à l'assemblée seen parti moo leen investir. yaa donc je pense que loolu citoyen bu nekk mën nga def sa politique bopp parti bu la neex mais bu ñuy wax syndicat syndicat la ñuy wax parce que syndicat politique dafa wute parce que dañ politicien danaa li ni dañuy wax syndic politique ci benn ak syndicat syndicat jooni jooni la tey su ma ne woon su ma ne sama gars yi tout pas waaj dal nañ jox cent mille francs ma wax leen ko ni buñ gisu cent mille francs ñu wàccam loolu du politicien du demee noonu hmm. en politique du demee noonu donc dafa am yoo xam ne dafa wute mais ki nga xam jënd option def politique am na ci droit mais na ko fësal. dem defi ko waaw bu fekkee say seen texte aussi may na leen ko maanaam xam nga politique ak syndicat politique dafa gaaw yàq syndicat. Ah. parce que boo nee man diw laa far diw ñun vivre nañ ko en 2001. waaw te gis nañu sax ci taarix mu yàq ay syndicat on l'a vu en 2001. Ah. toog président Wade moo fi nekkoon à l'époque avec les chefs Diop c'est mon mais damay rappelé toujours dama ne dañuy wax deux mille durant tout président Wade ñu rek ñoo fi def grève générale ni par la CSA damay defee grève dañu woo ñoom Cheikh Diop au palais ñu ne jël télé yi ne grève bi ñun bokkuñu ci te lépp lu ñu def dañ koy yàq dañ koy yàq loolu lan moo ko indi politique moo ko indi alors qu'on a les mêmes combats pour les travailleurs bu ñu fa jógee lan moom def nañ congrès congrès bi lan moo pour dimension politique moo ci dugg ba reyante am rey ay suñuy camarades lakk fi suñuy nit lakk suñuy affaire ñu condamné ko dix mois à dix mois d' emprisonnement n' est ce pas donc voilà un peu am na yeneen yoo xam ne donc euh, on n' oublie pas hein mais on pardonne parce que am na yoo xam ne aussi duñ ko euh, mun na ko fàtte si l'histoire qui est là donc pour wax ni politique mën na nit ñi mën nañ xam ni politique bu ñu koy def na dem ci biti bu ñu duggee ci biir syndicat bi dañ def seen mot d'ordre duñ ko jël ci parti politique yi dañ ko jëlee ci seen ay militants de base ñooñu ñoo leen war jox moo d'ordre mais waruñ ko jëlee ci euh, buñ ko defee ku nekk ñëw parce que CNTS c'est l'unité de contraires parti yëpp a ngi ci biir CNTS parti boo jël hmm. mi ngi biir CNTS militant parti bu nekk am na biir CNTS te ñu ngi nekk di wax di diisoo te jàmm ak salaam donc loolu la ñu war a def parce que mënuñ nag ne sama ligne parti wala sama président moo nekk nii wala président APR moo wax lii non non loolu nañ ko bàyyi fële dañ seet la nga xam ne lii. mën na jëriñ réew bi mën na jëriñ liggéeykat yi euh, nekk na as nekk na itte liggéeykat yi ñu taxaw ci loolu daal man laa jàpp ni mais. ku mu neex nag mën nga ne je veux me présenter mën nga def ko dem def ko. amul looy réccu ci syndicalisme bi. non assumé naa lépp. lu ma def ci syndicat lépp lu ma ci def rek assumé naa ko lu baax ak lu bon jàkk naan naan yàlla te gëm naa ni li ma ci def baax mu ëpp fuuf waaw man daal tëccu ci dara. sant sunu borom jaamu yàlla ci yow. man daal maa ngi sant sunu borom sax ci loolu parce que euh, gëm naa ni daal def naa ci euh, def xëy na def mu lépp mais daal maa ngi gëm maa ngi sant sunu borom. ba mu jàppale ma ma def ci ma ci def. du yàgg dara ñu màggal liggéeykat yu jigéen ak yu góor yi fii ci réew Sénégal premier mai day ñëw yéen a ngi koy waajal mm. ah, yow tey boo doon xayma nekkin wi tolluwaay wi ci liggéeykat yi ci Sénégal te bu ñu fàtte ay wax fonction publique waaye bu ñu fàttee ne économie sénégalaise téeméer bu ñu ci jël juróom-ñaar fukk yi 70 pour cent informel lañu ñoom tamit ñi ci naaj bi ñoo fi bàyyi ñi ci kër gi seen cër seen ak seen yelleef noo jàngatee loolu yëpp. da nga bu am solo. maanaam souvent dañuy wax rek bu ñuy wax dañuy fàtt dañuy wax ñi nga xam ne ñu ngi xëy ci bureau yi walla ci euh, usines yeeg yooyu alors que suñu économie li ëpp li ci ëpp jigéen ñi ko porté secteur informel la te bu ñu jëlee secteur informel presque soixante à soixante-dix pour cent yi ay xale la ak ay jigéen donc ñu war leen a bàyyi xel catégorie yooyu nag ñun quelquefois dañ koy dañ ko dañ ko dañ ko jëli bàyyiwuñ ci woon mais depuis quelques années Sénégal en tout cas ñun en tant que euh, CNTS dañu jàpp ni syndicat yi tey suñu demee sax wara développe tey ak ëllëg dañu war a bàyyi xel secteur informel dañ leen war a organiser dañ leen war a jàppale loolu moo tax ñun euh, secteur informel boobu dañ ko bàyyi xel te ñu ngi leen di organiser bu baax a baax depuis quelques années boo jëlee gargotières yi ñu fi ëpp ay jigéen lañu maanaam ñu jaaykatu pension yi organiser leen en syndicat national forme nañ leen structurer nañ leen dugal lañ leen sax ci syndicat yoo xam si au niveau international def nañ syndicat national de d'économie informelle Ani Diouf moo koy jiitee tey jii mi ngi ci euh, Strinet soo tapé Strinet di nga xam lan la mooy kuréel bi ngànk secteur informel bi ci àdduna bi yëpp soo jëlee la les travail domestique li nga xam ne li mooy convention 189 nga xam ne mooy ëmb jigéen liggéeykat yi nga xam ne am na ay góor aussi te mhm. jigéen ñi ëpp liggéeykat yi kër yi nga xam ne seen ay droit aussi dañ koy violer tout le temps duñ leen toppatoo dañu ñefe pour que convention bu parce que bokk nañ ci ñu ko ñafe aussi euh, au niveau international bëgg nañ aussi suñu réew daal di ko ratifier mais yemuñ ci woon loolu avant ñuy yegg si ratification bokk nañ ci ñoo xam ne ñoo ubbi benn centre à à la Gueule def ko centre d'écoute des jeunes travailleurs domestiques c'était un centre boo xam ne ñoo fa ku ci am jafe-jafe parce que dañu am jafe-jafe quelquefois na nga ñëw foofu ñu waxtaan ak yow nga wax ku ngeen la. yàlla dafa dogal centre boobu forme nañ fa sax benn cohorte de vingt six vingt cinq femmes fii mais après sunu sunu partenariat ak sunu benn partenaire dafa arrêté mais CNTS mi ngi réfléchir en rapport avec benn camarade boo xam ne médecin gérontologue la ak d'autres camarades pour joxe benn orientation centre bi maanaam pour que ñuy tàggat euh, ñooñu ci wàllu entretien ménager parce que souvent xale bu jigéen bi bu jógee ci village bi ñëw mën na fóot mën na paase mën na bale waaye entretien moderne du ko mën du mën a dresser table du mën a def yenn yi te loolu da koy gàllankoor hmm. ñu ñuy renforcer capacité am ci mais beneen bi aussi ñu seet nan la def pour que gérontologue bu ñëwee jàngal leen nan la ñu entretenir nañ accompagner les personnes âgées te loolu mooy suñu xalaat fi mu nekk soo jëlee les soo demee Mbëbës le groupe bokk jom mooy ñu nga xam ñoo si les récupérateurs tey ñu ngi nekk ak ñoom depuis lors pour ñu défendre seen ay intérêt parce que Mbëbës xam ngeen ni y a un projet en cours président Macky Sall dem na mais ba muy dem dañuy fexe ba ñoom ñu jël parole il faut ñu wax pour que président bi dégg li ñuy wax ak seen intérêt te ñu ngi ànd ak ñoom aussi parce que projet bi dañu bëgg projet bi dañ leen war a parce que Mbeubeuss am na ñu fa dëkk site boobu bu ñu ko jël il faut ñu jox leen fu ñu dëkk. am na ñooñu ñoo xamante sax ne dañ fay jëlee ay baax moom mooy ñi ma la mooy ñi ma lay wax c' fay laq et tout non non dama ne li wax ñooñu am na ñoo xam ne c' est près de 2000 personnes yoo xam ne foofu la ñuy xëyee yore seen njàngu doom ci lañ koy fayee yenn ñu fa la ñu dëkk. am nañ ay droits c' est des citoyens et des yoo xam ne secteur informel ñooñu am nañ droit ñu accompagner leen. Mm. soo dee ba daan ngay def usine usine boobu ñëw bu fekkee da nga leen nga am fu ñu dëkk. parce que bu ñu man bu ma en tant jàngalekat wala kii ne jox lañ ma logement ñu may la ay terrain ñun ñu dem dëkki foofu fonctionnaire ñu may leen terrain ñoom ñoom aussi fi ñu dëkk bu ko nar a jël pour def ko dañ la war a yóbbu feneen ñu dëkk foofu c' est des c' est des su fekkee ne aussi ñu ngi naan dañ fa def projet ñoom ñu fa nekk di ca xëy di ca di ca kii war nañ leen boole ci projet boobu te loolu dañ koy wax dañoo bëgg nag mu nekk parce que bëgguñ aussi ñoom na na na saxal leen c'est pour dire que secteur informel bi ngay wax ak ñun on est ensemble euh, des artisans maanaam boo waxee mécaniciens yi euh, tailleurs yi am nañ syndicat tailleur am nañ syndicat artisan ñoom ñëpp premier di nga leen gis. ci loolu sax pour xam ne secteur informel bi. Mhm. dañ leen war a fulaal faydaal leen jàppale leen il faut ñu accompagner leen ci seen ay droits accompagner sur la formalisation mm. formalisation bi mooy permettre ñoom aussi ñu am accès au financement mooy permettre aussi ñu mën am ci yeneen yeneen yeneen euh, possibilité donc de de partenariat avec d'autres personnes te loolu il faut ñu mm-hmm. def ci euh, ay jéego il faut que gouvernement bi euh, taxaw ci bu baax a baax a baax en tout cas syndicats yi ñu en tout cas ñu ngi joué suñu partition ci domaine bi te li ma lay wax. Mm. su les transformatrices aussi mooy ñi nga xam ne ñooy ñooy les les transformatrices de de céréales locales. Oui. dans les quatorze régions. ñëpp ci fa nekk synthèse am na ci secteur informel ba tey gis nañu benn phénomène boo xamante ni euh, commencé na jël benn euh, envergure di phénomène moto cag-cag yi ay ndaw yu bëri di ci dugg ndaw yooyu tamit euh, nan ngeen nar a def ñoom. waaw c'est-à-dire que ñun dañuy am ay initiative ñu jël peut-être que ça va prendre du temps parce que xam nga foo dem rek ak culture ak mentalité ak rivalité bi euh, d'abord dañ jàpp ni càq-càq commencé wul tey. moto yi xëy na léegi la ko nit ñi gën a découvrir mais man gën a bëri. mais man ba ma nekkee xale ça fait comme man je suis âgé maintenant déjà man ba ma nekkee xale am na moto. zone yooyu xam non dama ne am na moto Dakar c'est pas le Sénégal. malheureusement nit ñi dañu foon Dakar Sénégal mooy Dakar Dakar du Sénégal am na loo xam ne mënuñu juger parce que Dakar rek lañ xam xamuñ sax géejuwaay lu fa amoon démb ak bërki démb duñ ko xam parce que mosuñ dem jógee pour fii dem am na mag màgget yoo xam ne xamuñ sax fu fu fu fu mosuñ génn dakaar gi dem nañ fii lañ màggee moom la xam mu suñ fi génn xamuñ Pikine xamuñ géejuwaay xamuñu am na foon boo leen ne fu buun xamuñu ko boo leen ne fan mooy ci an pël xamuñu ko donc les changement là dañ ko mën a gis sax xam nga loolu c'est important alors que les gens doivent aller découvrir donc moi je pense que ni loolu yàgg na am ñuy transporter par moto mais développement bi crise bi moo indi lii rek parce que xale yi yorem jag-jag ñi ci ëpp 90 pour cent bu doon seen sago duñ ko def c'est un moyen de survie donc de gagner un peu leur mais il faut que ça s'organise nga ba ñu defee kaw rek c'est que ba mu commencé phénomène bi ñun dañu wuti des partenaires parce que dañuy xam nga booy dëkk boo dem booy fekkee da ngay voyager la curiosité dafa baax daal jàpp naa ne su ma tukkee damay seet toujours lan laa mën a jàng ci dëkk pour sama réew man moom si noonu ma demee Bénin musuma gis moto yu mel noonu c'était la première fois Cotonou dama tiit ma ne waaw mais ma gis fa laajte. bay camarades dañu organiser wu am ay mutuelle am assurance am et cetera et cetera ba mu ñëwee ma ne bon lii que mu ngi am phénomène buy commencé ak Kaolack d' ailleurs parce que moto yi commencé nañ di dem mais Kaolack jël nañu ay moto ñu ne bon est ce que mënuñ fexe ba li ñuy gis beneen ñu def leen d' abord boo si loolu lañ bëgg a wax ak ñoom aussi parce que ils sont syndiqués parce que am nañ ci groupe boo xam ne si suñu organisation la bokk. càq-càq yi qui sont un peu partout aussi ñu ne boo bokkee ci dara boo ko organisé boo ko organisé day nekk anarchie contrôler ko après day d' abord il faut que ñu am reconnaissance ñu organiser en syndicat bu ñu amee syndicat ñu organiser wu nan la ñu organiser mooy ku ci nekk mën a xam ni sa morom. Hmm. xam nga fii am na CNTS am na CNTS FC am na une UNSAS am na et cetera ñu ne bon nañ leen wutal ay gilet comprendre maanaam suñu camarade on va vous acheter des gilets ces gilets vous allez les numéroter et vous allez mettre votre sigle de telle sorte képp ku bokk ci yéen leen ko xam comprendre oui. donc surtout organisationnel loolu dañ ko doon def mais sottiwul parce que les gens quand tu un group quelques, euh, certains peuvent comprendre, d'autres no Certains on de bonnes intentions, d'autres non. Mais le travail daa waruñ ko bàyyi dañ ko war a continuer conscientiser leen waxtaan leen orienter leen ba ñu gis ci njëriñ parce que loolu leen moo dem per beneen bi ñi ñuy waxal actuellement dama leen wax mooy ñu demee ba gën a organiser wu au lieu ngeen di dem di di jéggaani ay pièces détachées est-ce que mm-hmm. di ko lebi wala fee ngeen am seen groupement pour am seen sphere détaché bopp gan bi yéen a ko moom mais il faut que ñooñu nekk dans la structure bu ñu partagé. formaliser ni ñu ko doon waxee. voilà mën a jël foofu soo jëlee gargotières yi aussi. trouvé nañ finalement mais li ñu li leen gàll encore c' est un peu le la le la pandémie ubbi nañ leen coopérative parce que nee au lieu ngeen di lebi ceeb diwlin ceeb ak diwlin ak sol yooyu ngeen di jënd di gën mooy ngeen jëlee ko fi nga xam ne yéen a ko moom. ci pandémie boobu mu nekkoon ab leçon ci travailleurs yi euh, nan la ñu war a mën a def ñoom liggéeykat yi ba mar day taali ëllëg beneen mbas bu amee ñoom euh, dina fekk ñu daal di jël les devants euh, comme li leen dal ci Covid bi bañ leen dalati. non xam nga nag dañoo wax dëgg du ñoom ñoo war a protéger seen bopp. c'est l'état qui doit protéger les citoyens am na yoo xam ne état moo ko moom état moo ko war a def état moo war a protéger léeg-léeg pandémie moom musiba la. ñu ko yàlla bu mu jëmati bon bu am. mais bu amee euh, tous les gens doivent se souder maanaam solidarité li ñu wut foofu mais organisation ak protection bi ki mu incombe dëgg-dëgg c'est l'état du Sénégal te état bi dans sa globalité ñun ci la ñu bokk dañu war a fexe donc liggéeykat yi ñu protéger leen fi ñu leen protéger mais fépp ku nit liggéey war nañ assurer sa santé sa sécurité parce que d'autant plus tey. Euh, ñefe nañ depuis quelques années au bureau international du travail comme tu l'as di tout à l'heure man je suis membre du conseil d'administration du bureau international du travail ba ñu jël euh, benn convention def ko ba convention fondamentale mooy la santé sécurité au travail dafa nekk léegi un droit fondamental au travail comme ni mu nekkee nañ euh, dialogue sociale bi yooyu yëpp c'est des droits bêta donc li nga xam ne li donc moo am dañ naan liggéeykat bi fu mu mënta toll dañ ko war assurer santé am ak sécurité warul am benn risque boo xam ne mi ngi ci wetam yaa ngi dégg donc loolu droit boobu état bi moom moo ko war moo war protéger liggéeykat yi muy yéen ñu nekk fii muy ñeneen ñu nekk mbëbës seen seen environnement seen lieu de travail warul am risque risque boobu dañ ko war waruñ ko liggéeykat warul nekk foo xam ne am na risque waaw loolu moom mu nekk loo xam ne moo tax ma ne la yu mel noonu pandémie euh, bu accès état bi d'abord en premier ñeneen ku nekk jàpp solidarité en même temps avant loolu ñu yegg ci pandémie lu ñuy wax liggéeykat bu ne kilifa gu nekk patron bu nekk état bi war na fex bi liggéeykat bi fi muy liggéey mu am sécurité ginnaaw mbas mi ni mu gàllankooree liggéeykat yi ñu bëri ñàkk ci seen xëy ak ñoom seen leneen tamit dalati ci kaw uh, koom yi ci àdduna bi di réewum Russie ñi dal ci kaw réewum Ukraine mm. ñuy wax li ñaari punkal yooyu ñoo doon dundal àdduna bi uh, ñëpp yëg ko Sénégal tamit muccul ci loolu nan la ñuy jàmbaar loolu ak jafe-jafe dama yaakaar ñëpp war nañu am conscience ni ay phénomène externe la man maanaam loo xam ne jógewul ci suñu réew lu sababuñu ko ba dafa jóge bitim réew uh, te day wane ne aussi mondialisation bi ak ni dëkk yi duggante mais da may may aussi ma ma ñu remercier ah encourager gouvernement Sénégal parce que ñaari crise ba mu aussi ba mu ñëwee gouvernement état ak euh, état du Sénégal président bi def nañu ay sacrifices yu mag waaw ah, loolu moom aussi mën nañ ko wax maanaam accompagner euh, liggéeykat yi accompagner entreprise yi pour ñu bañ a suux parce que bu ñu suuxee musibaam ba crise bi amee aussi effort yu ñu def li nga xam ne mooy Ukraine bi nga wax. ci mba ci maanaam li ñuy dundee euh, fexe ba euh, ñu ñu ñu ñu subventionné ko à des à des niveaux extraordinaires kooku xam nañ ko li nga xam ne aussi mooy subvention yi def ci pétrole bi parce que loolu lépp crise bi moo ko indi euh, ñun responsable xam nañ ko donc état bi def na effort yu mag a mag xëy na effort yi su crise boobu amuloon loolu ñu defoon bu ñu ko dugaloon ci nu mu tuddati ci ci liggéeykat yi ak maanaam ci revendication yi jàmm nañ ñooy mais malheureusement Euh, hydrocarbure bi euh, li ñu ci def euh, ak jën jën ki nu mu tëddi dund bi loolu yëpp donc c' est des c' quand même des des sommes énormes donc il faut quand même encourager et remercier l' pour cela mais xam ni aussi malgré li ñu am population ñu ngi souffrir malgré ces efforts doomu aadama yi sonn nañu boo demee marché tey da nga yéemu. donc euh, tout est cher encore malgré les efforts qui sont faits. ndax ci doole ñu ay ay koom lañu yuy euh, jéggaani tamit du loolu moo gën a yokk suñuy jafe-jafe en fexe ba autonomie suñu autonomie alimentaire ak suñu souveraineté alimentaire ñu mën ko maanaam nit ñi autonomie rek waaye du autonomie rek ak souveraineté. maanaam ñuy béy li ñu soxla ñun li ñu bëgg. di bay di dundee ñu ñu béy d' abord li nga xam ni moom la ñu bëgg béy suñu réew. ci loolu sax est ce que crise bi xam kenn duñu ni. Mhm. béy leen lii wala ñun ñooy seet li ci ñun ñu béy ko. crise bi est ce que war nekk benn njàngat ñu xam ni waatuñu euh, jéggaani. bi non non naa jàngat boobu am nañ ko. Euh, fexe daal war nañu mën a di dundee li ñuy bàyyi fii ci réew mi. non man loolu moom ñëpp comme d' nañ ci léegi amul kenn ku ci d' accord muy état muy ñëpp ku ubbil sa bët moom dañ naan dof nga waaye loolu moom tey Sénégal muy feneen waa en tout cas suñu réew on a am nañ suuf am nañ ndox on a des bras valides lan mooy manqué nañ jox invest investissement bi wut njuntuwaay te daahu ilaa daba dañ ko teg fële dañ war a mécaniser suñu ind suñu suñu sunu ñu bàyyi mbayum maam ah maam dafa nañu ko mécaniser fexe ba ñuy béy ñu jox leen outils yi supprimer intermédiaires yi. parce que ñenn ñi si pëy ñi engrais bi doy. ndox am na engrais bi dañ leen ko jox euh, outil mécaniser ko nit ñi di béy en loolu bu ko defee ba pare état bi aussi organiser pour que yenn production état bi di ko jënd parce que bu ko jëndee organiser nit ñi aussi en coopérative parce que dafa yoo xam ne yi xëy na mën nañ ko def mais il faut pesant yenn pesanteurs yi ñu am courage dindi ko. ci loolu sax ñu parce que. Mhm. gëm naa ni. Sénégal bu jëloon rek chaque année ñi génn ci armée xale yi parce que man gis naa foo xam ne fii euh, jeunes militaires yi nekk ci armée am na benn kii bu ñu leen defal benn genre euh, kii nu mu la xaw ma. en tout cas tool tool boo xam ne di yar di kii. nation dëgg la benn général bu ko def di ko mi ngi fii à la retraite ko jëloon tey loolu mën nañ ko def naan xale yi bu ñu génnee. ñi jeunes les jeunes là qui sortent de l'armée ou qui sont ailleurs ñu jël leen encadre leen jox leen ay ay yóbbu leen tàggat leen jox leen suuf jox leen ay intrants nee leen béy leen bu ngeen béy état bi jënd ko bu ñu ko defee léegi affaire développé ban gis-gis nga am ci secteur privé euh, njariñam ci sunu gafaga réew secteur privé bi nan nga ko gisee. mais secteur privé mooy yor économie kooku aussi bu ñu ko fàtte l' état doit soutenir le secteur privé. te suñu secteur privé aussi mi ngi dans des situations extrêmement difficiles parce que xam loolu xam nañ ko aussi moo tax quelquefois nit ñi duñu wax boo nekk à des niveaux de responsabilité du am yoo xam doo doon xam mais euh, état bi dafa war a jàppale secteur privé bi parce que am na secteur privé ba bu ko état jàppalul du dem te secteur privé mooy mooy mooy yor économie yaa ngi dégg da mooy mooy créer emploi investissement mooy créer emploi te investisseur privé moo ko yore état bi mi ngi investir mais dafa war a jàppale secteur privé bi il mu am loo xam ne ni aussi concertation war na am ci loolu euh, seet nan la leen jàppale euh, entreprise privée yi nan la leen jàppale pour ñu mën a pour ñu mën a dox fexe ba si ba contraintes yu métti yi euh, wàññeeku parce que tey privé bi xaalis lay wuti ci banque la koy wutee boo xoolee boo xamee peut-être taux d'intérêt fi ñu toll ak bu ñu bëggee dara nan lañ leen koy joxe c'est difficile c'est difficile donc euh, conjoncture bi ñu toll de en tout cas metti na mettiwaay boo xam ne bi ah il faut nécessairement que état bi trouve des stratégies pour accompagner le secteur privé waaw beneen bi mooy la nga xam ne as tuut moom lay liggéeyloo secteur privé bu ñu liggéey ba pare mu mun leen ko delloo maanaam euh, waa ñi yi parce que aussi fois secteur privé day liggéeyal état par état bi du nekk daan des conditions toujours di ko di ko euh, maanaam bala muy fay day yàgg daal hmm. donc loolu lépp day répercuté ci liggéeykat yi ñu doon donc day répercuté aussi ci euh, ci environnement économique global bi donc je pense que secteur privé comme ni nga waxee waruñ ko waruñ ko dañ ko war a dooleel fexe aussi euh, ci suñu économie ci sunu politique euh, lépp loo xam ne li investissement wala travaux yu bees du ñëw ñu bàyyi ci wàllu secteur privé national. gàllankoor loolu aussi dafa war a nekk. mais comme on le dit secteur privé aussi dafa war organisé wu mu bañ a divisé wu nekk un secteur privé fort am des capitaines d'industrie ci kanam ñoo xam lépp lu ñu wax ne secteur privé am na ci paaram ñu dajale seen ndax as tuut dem ne ñoo ngi ni taxaw. ci gàllankoor yooyu ñu doon wax sànq yaa ngi wax ci gàllankoor yi nga xamante ne ci bitim réew la euh, mbas mi wala invasion ukrainienne bi euh, Russie amal lii de waaye ci suñu biir réew tamit am nañu ay gàllankoor. Eh, xew-xew yi amoon février mars ñu bëri ci ay liggéeykat am na lu ñu ci ñàkk yeneen i xew-xew yi ci toppaat liggéeykat yi commerce yu bëri tëj eh, bu ñu koy xayma tamit loolu ak talam tamit ci koom gi. waaw man je pense que ñun condamné nañu en tout cas toute forme de violence je que ak nu mu mënta demee waruñu attaquer wala di yàq wala di cambrioler wala di détruire ay entreprise yoo xam ne dañu nekk liggéeykat sénégalais lambda bi sax. man na koom-koomam ñàkk defar affaire am pour tedd wala tedd jëriñ jam wala une entreprise étrangère ñëw investir suñu réew ay sénégalais ñëw fay liggéey amuñ benn droit pour yàq su forme de violence en tout cas dañ koy condamner. Ah. ñun loolu moom duñ ko cautionner dañ koy condamner fermement. je pense que muy Total muy Auchan muy beneen entreprise muy beneen euh, beneen. pays même informel yi sax yi dul tëj. ak manque à gagner bi ñuy am wala day la bon. moi je pense que yooyu yëpp aussi. Euh, dañ ko war a dañ ko war a euh, dañ ko war a xool bien que ni Sénégal état de droit la république dañ ko war a garantir mais aussi dañu garantir aussi certaines libertés reconnues par la constitution fexe ba waxtaane aussi ku ci nekk assumer sa responsabilité moo di gërëm man su ma defee sama demande de ma ñu ma autorisé sama marche nañ ma encadré ma def lu may dox mais lu yàqu ma xam ne man la lu ci xew aussi maay responsable bi parce que loolu aussi mais parce que mënuñ aussi bañ nit ñi manifester wala mën bañ a dox wala ba manifester mais en tout cas. ak luñ autour luñ mën a def mën bañ yàq moom dañ koy condamné. Mm-hmm. amuñ droit def ko ci biir Sénégal waruñ ko def waruñ ko nangu parce que aussi duñu du loolu mooy li nga xam ne moom la war def. waxtu waa ngi commencé xoj rapidement euh, daaw ngeen euh, joxe woon seen cahier de doléance première mai ñëwaat est-ce que boobaak léegi am na ab coppite gu ci am. waaw xam nga nag euh, nit ñi comme ni ko waxee. nga bu fekkee ne syndicalisme moom ñu bëri premier mai ba premier mai dañ ci xam nga yéen. premier ba waaw parce que ñu bëri nañ premier ba premier lañ leen di premier ba premier ñëw. ngeen foog ne seen syndicalisme wala àddina bi seen ci premier mai rek premier mai c' est un c' est un jour c' est tout waaw c' est un jour qui nous permet de dialoguer avec le président la république. mais yàlla bu tiim xam ne bu fekkoon dañ def le bilan de tout ce qu'on a fait au cours de l'année da nga naan non xanaa kay. bi amul. waaw ah, na kon da ngeen a gën a communiquer. non bi xam nga quelque fois damay wax man sax dañ may reproché ne on ne communique mais wolof Njaay dafa ku ku wax feeñ. waaw fois dañ naan aussi booy ku yor ci sëqat. <laughs> am na ñoo xam ne dañ naan bu ñu xamee fa jëm doo yegg si. Hmm. yëpp dañ koy dañ ko dañ koy. du nëbbatu daal non nëbbatu li am solo mooy résultat bi. ak ñu ngi ko séqal am la satisfaction morale waaw. xam nga tey boo ñëwee nga jël benn entreprise boo xam ne doon liggéey loo ba quatre cent quatre-vingt-treize travailleurs pendant dix ans ou quinze ans nekk leen sous forme de contractuel di leen fay cent trente-cinq mille par mois. Hmm. nee na ñoom ma nangam nangam ñooñu jékki-jékki ñëw ci yow ne ah yaakaar bi daal fii lañ ko am parce que dem nañ fu ne mais am nañ yaakaar ni buñ ñëwee fii xëy na nga ànd ak ñoom ñefe ak ñoom. ba ñëw 493 yëpp ñu jël leen dafa leen contrat durée indéterminée fay leen des niveaux de salaire décent mais est-ce que dan nga communiquer c'est satisfaction morale boobu ngay am ak liggéeykat bi nga tax nga dem feneen nekk deux ans de chômage suñu entreprise dafa tëj on est 200 mères et pères de famille on met en chômage technique nga nekk ak ñoom ñefeek ñoom ñefeek ñoom ñefeek ñoom ñefeek ñoom ba ñu nekkuñu chômage technique ci lu ba doon déwee des salaires nga fay leen salaire yi nga gunge leen ñu ubbi entreprise bi entreprise bi dox ñu jëlaat seen mais satisfaction est ce que dañuy communiquer ci yooyu. ñi ñu ko defal. sutura daal maa bokk sutura non ñi ñu ko ñi ñu ko àndal. ñoom xam nañu parce que ñooy liggéeykat ñoom ñooy sunu ñoom ñooy sunu patron pratiquement parce que ñoom ñoo ñu fal. am seen jafe-jafe ñu toog ak ñoom mën nañ cité lu mel ni am pagaay hmm. comprendre ba nga fekk nit ki xam ne droit nga ne ko foqati démb rek y a des gens dans euh, benn entreprise pour loolu c'est des mais ñoom ñëpp dañ leen dañ leen jël en contrat durée indéterminée nga jël Ila Touba bi est-ce que yooyu a bon xam nga. travail direct c'est des Sénégalais. ñu ngeen fay ay kii di leen. liggéey kuy liggéey daal du di wax leen liggéey loolu n'importe comment. kuy liggéey du di wax ànd ak ñoom ñefe ñoom. ba tey ñoom ñëpp si sont sous sous contrat durée indéterminée. Hmm. soo amul satisfaction moral boobu moo ñu intéressé. li ci des du pour. ñëw ci tele bi waa maa def lii def naa lii non xam nañ yàlla xam na. Hmm. waaw parce que euh, quotidiennement ci loolu lañu dëkk waaw. waxtu wi jeex na nga ñëw nit dem na sama patron. Hmm. ma woo patron bi wala keneen woo wala man kaan ànd gunge leen nii parce que man mënu ma def lépp. Hmm. c'est des camarades qui sont waxtu wi jeex na monsieur ah. Mody Guiro mu nekkoon pàcc bu njëkk bi ci wàllum euh, <laughs> Kocc Barma ah. ñu lay euh, jaajëfal wala sax ñu lay jaajëfal encore une fois. sa teewaay suñu merci man maa leen di gërëm di leen sant le temps passe vite. de tellement sujet tellement passionnant. dafa am sujet sujet bi dafa yaatu bon fois sax du ñu mën a wax xëy na ñeneen ñoo fi waroon gën a ñëw wax parce que fois si difficile ñaan yàlla rek may ñu kàttan yaakaar yi nga xam ne doomu aadama am nañ ko ci syndicat ak ñun. yàlla bu yaakaar bi tas waaw yàlla may taxawaay may dëgër ba suñu mission ñu accomplir ko ci jàmm sanoon yàlla def jàmm Sénégal hmm. defal leen ko defal ñu ko parce que jàmm ci lépp xëj xawali bu nekkoon pàcc mu njëkk mi ci euh, kàllaamay Kocc Barma loolu la ñu jàll léegi léegi ginnaaw diir bu ndaw bi ñëwaat ak suñu gan amal waxtaan bi ci kàllaamay nasara Chers téléspectateurs de Sunu Label TV, bonsoir. Hawali, bonsoir. Bonsoir à Gay, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à notre invité. Euh, de ce soir, euh, c'est un grand syndicaliste. Il s'appelle euh, Monsieur Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. On ne vous présente plus dans ce pays, donc au Hawali. Euh, nous avons euh, un portrait euh, pour notre invité. Oui, dressé par Daipenda Silalo, qu'on suit avant d'entrer dans le vif du sujet. Deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental, Modiguero s'est forgé un nom dans le syndical du Sénégal. Modiguero est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, un qu'il est parvenu à garder malgré la fronde organisée Cher Diop. Bras de fer qui aboutit à une scission de la Confédération syndicale vers les années 2001. Cette expertise est sans doute à l'origine de la nomination de Modiguero

large front afin de pousser les autorités sénégalaises à une prise en charge urgente et rapide des préoccupations de la population sénégalaise en général et les travailleurs en particulier. Lister les nombreuses difficultés auxquelles font face les travailleuses et travailleurs du Sénégal, de la santé à l'éducation en passant par l'agriculture, l'élevage, le transport, les industries hôtelières, la pêche, les industries alimentaires, l'économie informelle est devenue le sport Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Moutiguiro est l'invité de ce numéro de l'entretien. Merci beaucoup Ndaipen de Silalo. Alors, Monsieur Guiro, vous vous retrouvez euh, sur ce portrait Je me retrouve, sauf euh, que je n'ai pas de Wolof, hein, parce que je conseil de la Caisse. Je suis membre du conseil d'administration de la Caisse. J'étais membre du conseil d'administration de la Caisse. à part ça, je n'ai rien à dire. L'essentiel a été dit. Très bien, merci pour la précision. Alors, on va démarrer avec cette actualité, le Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes le deuxième vice-président de cette institution. Alors, euh, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fonctionnement de cette institution, qualifiée souvent par certains comme étant inutile et budgétivore Bon, moi je pense que d'abord, euh, le Conseil Conseil économique, social, environnemental est une institution de la République. Donc, euh, nous avons toujours eu au Sénégal un Conseil économique social, parce que le Conseil économique social est, un, est une assemblée consultative regroupant donc pratiquement pas mal de secteurs de, de, de notre, le Sénégal miniature, le Conseil. Et c'est un assemblée consultative des qui, est, qui, est, là pour donner des avis au gouvernement et peut-être euh, au gouvernement et au président de la République. Je pense voilà le rôle du Conseil. Maintenant, ceux qui disent que le Conseil n'a pas d'utilité, pas de cet avis. Non, ce pas parce que je suis conseiller, mais je pense que c'est une institution utile qui permet au moins au Sénégalais de réfléchir, de s'autosaisir même. sur des questions importantes. Peut-être euh, la question qu'il faut se poser maintenant, que qu'est-ce que le gouvernement ou Monsieur le Président de la République fait de, des avis qu'il reçoit Voilà un peu quoi. Mais selon, selon moi, en tout cas, je pense que c'est une institution qu'il faut maintenir. Voilà. Euh, qui permet au moins aux Sénégalais, euh, donc de tout horizon, de pouvoir se retrouver, d'échanger sur des questions d'intérêt national ou des sujets sur lesquels donc le gouvernement ou le chef de l'État aurait besoin d'un éclairage autre que celui donc du, du gouvernement. Mais c'est des avis, comme je l'ai dit encore une fois. Euh, nous ne sommes pas le seul pays à avoir un conseil social. Cela fait partie de notre euh, structure institutionnelle, mais également au-delà du Sénégal. C'est des structures qui existent un peu partout. Peut-être c'est parce que c'est les politiciens qui dirigent ces institutions. C'est pourquoi toujours cette question les, les employeurs et les, et les, travailleurs qui dirigent les, institutions de près. Si vous prenez le Mali, c'est un syndicaliste qui dirige le Conseil économique, social et environnemental qui est le président. Donc, euh, je pense qu'on voilà un peu quoi. Maintenant, euh, les politiciens euh, casent leurs hommes, etc. pense que c'est le président de la République qui nomme à tous les postes civils et militaires. C'est lui qui nomme le président du Conseil économique, social si, si, si, également d'autres personnes sont nommées parce que c'est des politiciens, je, non, je sais pas. Il faut prendre acte et puis faire le. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu que nous donnons à cette institution et ce que nous pouvons faire pour notre pays. Pourquoi l'on ne vous entend pas beaucoup Vous avez fait l'option de, de, parler via les actes Qui Vous, M. Guiraud. Guiraud. Bon, je ne suis pas, en fait, euh, je suis très bavard hein, quand je suis en réunion, mais je ne suis pas très bavard devant les médias. je pense que d'abord c'est une option personnelle, parce que je, je, crois que le plus, le plus important pour nous, c'est le résultat, c'est l'efficacité dans ce que nous faisons, plutôt que de, de, de paraître toujours. Et puis ensuite, l'organisation syndicale euh, ne s'articule pas autour d'une seule personne. Donc je suis le secrétaire général. Derrière moi, il y a une, toute une équipe des gens qui abattent un travail énorme, qui me font une solidarité, qui me qui, qui, qui, qui, dans une grande solidarité, qui abattent un travail, qui dirigent des organisations professionnelles. Donc, ils font le boulot sur le terrain et dans les entreprises. Vous avez des délégués du personnel. Donc, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement le résultat d'une personne ou d'un homme. Et je pense que c'est pourquoi, donc, quelquefois, on me dit, bon, euh, pourquoi vous ne parlez pas bon, Je n'ai pas besoin toujours de parler. Je parle quand le faut et Que vous inspire le départ d'Idrissa Seck, remplacé euh, par Abdoulaye euh, Daouda Diallo euh, récemment Je pense que Idrissa Seck est un Sénégalais, donc euh, est un, est, un, leader politique. Il a été nommé à cette station par le président de la République. Bon, le président de la, a décidé donc de mettre fin à, cette, euh, à sa fonction, le président du Conseil Je pense qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Il est Donc euh, les hommes partent, les institutions demeurent. Euh, en tout cas, voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, un, il a été notre président, nous l'avons tous respecté dans sa fonction de président du Conseil économique social. Maintenant qu'il qu est parti, donc je pense qu'il faut respecter sa décision et donc euh, accueillir également le nouveau président qui vient d'être nommé. Votre nom, M. Guiraud, est intrinsèquement lié au syndicalisme au Sénégal. D'où vient cette fibre syndicaliste C'est le destin, hein, parce que moi, j'étais <laughs> au début, ce pas pour faire du syndicalisme. Moi, j'ai quitté un boulot pour aller en chercher un autre, pour améliorer euh, mes conditions d'existence, de, hein, mon et ma force de travail en tant que jeune. Euh, donc, euh, mais, chemin faisant, je pense que quand j'étais là où je pensais pouvoir monnaie ma force de travail, il y avait tellement d'inégalités et de, de, d'inégalités et de violations des droits que très vite, euh, quand la révolution a éclaté dans cette entreprise-là, j'ai plongé. Parce que, en fait, je, tout le temps, je, je n'aime pas l'injustice. Moi, je n'ai jamais. J'ai toujours été du côté des plus faibles dans ma vie et je pense que voilà un peu ce qui m'a poussé à à, rentrer dans cette, dans cette mouvance, dans cette révolution à l'époque, dans notre entreprise. Et les anciens qui étaient là euh, m'ont même proposé, aussitôt après, donc, de prendre les paroles. J'avais aucune formation, mais j'avais ce courage, cette, part, cette donc, de, euh, de mobilisation. Et voilà un peu. L'un d'entre eux a dit non, laissons d'abord le fait d'avoir une couverture, une protection, parce que je n'étais pas délégué personnel en fait. quand j'ai plongé. Et quand j'ai été délégué l'année suivante, donc euh, voilà, ils m'ont proposé euh, de diriger le syndicat de base. Donc j'ai donc euh, pris les fonctions. J'ai été secrétaire général du syndicat des industries de, de base d'abord, ensuite secrétaire général des industries extractives de la prospection minière du Sénégal, ensuite secrétaire de l'union régionale de Thiès, secrétaire général chargé des questions d'emploi au niveau de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal avec Madia. Ensuite, secrétaire général chargé des affaires économiques au niveau de, de la Confédération avant d'être euh, élu en 2001, secrétaire la CNTS. Justement. Voilà le parcours. Donc, mmh. mmh. Maintenant, il faut dire que durant toute cette période, j'ai accompagné le Maïa Diop. Mmh. pas. Et cet accompagnement m'a beaucoup, il m'a beaucoup formé. Un grand du syndicalisme. Oui, on a été partout, nous a envoyé partout en formation, aussi bien dans les pays de l'Est que dans les pays euh, européens, n'est-ce hein, pas, aux États-Unis, au Japon, en France. C'est votre idole Oui, c'est notre, c'est notre, c'est notre père. C'est le père, c'est notre père. C'est pourquoi nous lui avons donné le nom de notre siège d'ailleurs. C'est, la CNTS Kër Mbadia. Mm. parce que il est tout pour nous c'est un grand syndicaliste un visionnaire très courageux et qui nous a forgé et certains me disent waaw yow Mbadia nii la man je même leur disait euh, que lui c'était une voiture à essence et moi j'étais une voiture euh, euh, gaz euh, diesel. <laughs> quel regard jetez-vous euh, monsieur Mody sur le syndicalisme d'hier aujourd'hui Bon, je pense le syndicalisme d'hier, bon, vous savez, à chaque chose son époque. Les, les revendications d'hier, le syndicalisme est né d'abord finalement pour revendiquer la Cour des travail, mais aussi le syndicalisme s'est impliqué dans la lutte pour l'émancipation, donc pour l'indépendance nationale. Ensuite, vous savez, on a connu des situations extrêmement difficiles, la, les périodes d'ajustement structurel, la lutte euh, pour, que, pour l'affranchissement. sur beaucoup de questions, pour l'amélioration de la législation du travail, des conditions de travail. Si on rappelle des points de revendication de, de, de, de l'intersyndicale, euh, on parle de, l'autonomie de gestion des institutions de prévention sociale. C'est grâce à la lutte des travailleurs. On parle de la journée continue. On parle de beaucoup de choses, de la révision du Code du travail, de l'article 35, la limitation des contrats à durée déterminée. Euh, la modification de code du travail, c'est des combats, c'était des luttes. Parce que l'environnement et les situation parce que vous étiez dans un pays où, ah, qui est soumis à, à, des, à des, problèmes d'ajustement, ajustement financier, ajustement euh, structurel, avec de nouvelles politiques industrielles, de nouvelles politiques sociales, où les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont, mis la pression sur nos États pour supprimer 2000 emplois, 20 000 emplois au Sénégal. Peut-être beaucoup de jeunes ne le savent pas, n'est-ce pas C'était des, des, batailles, euh, n'est-ce pas Mais euh, je pense que le mouvement syndical a toujours été là, euh, dans un environnement différent quelquefois, mais les missions et les combats sont restés pratiquement les mêmes. Vous parlez le deuxième aspect, oui. c'est que vous aviez également une situation différente de maintenant. Aujourd'hui, si vous le voyez, si vous faites une analyse, vous voyez que les organisations syndicales sont réellement fragmentées. Et la force du mouvement syndical, c'est son unité. Et quand les travailleurs sont fragmentés, sont divisés, ils sont faibles. Vous savez, dans une entreprise, vous trouvez syndicats. Vous avez difficilement une unité syndicale. Et c'est une situation qui n'existait pas avant. Quand, comme je l'ai dit, avant vous avez un seul syndicat, Ensuite, il y a peut-être deux, trois syndicats qui sur les flancs d'autres syndicats. C'est encore une situation acceptable. Mais quand vous avez 20 organisations professionnelles qui se disent centrales syndicales, eh, vous savez, quand vous vous battez, eh, vous, devez analyser, avoir toutes les, toutes les forces, mais également toutes les chances euh, d'aboutir. Sinon, c'est de, de, de, faire de faire preuve d'intelligence, de développer une intersyndicale, c'est ce que les gens font dans notre entreprise, pour essayer de se battre ensemble. Parce qu'ils ont de compris. dans la force ou de la force de l'unité. On peut être différent et marcher ensemble. Vous parlez de syndicalisme pur et dur, mais maintenant, nous, on se rend compte qu'il y a du syndicalisme avec euh, de l'engagement politique ou de l'activisme. Ce cumul-là, ou bien sous le couvert du syndicalisme, qu'est-ce que ça vous intéresse Vous savez, dans le syndicat, vous avez plusieurs trucs. Bon, on a parlé de. Avant, on parlait de syndicats la participation responsable. C'était la CNTS, parce que euh, la CNTS, à l'époque, dans, son, dans ses textes, son, son statut, euh, il était clairement dit que la CNTS était affiliée au Parti socialiste. Donc, euh, mais, chemin faisant, avec l'environnement, les changements en cours, l'ouverture démocratique, les organisations syndicales, les travailleurs eux-mêmes, au sein de la CNTS, et même avec le secrétaire général, avait compris qu'il fallait rompre avec certaines, certaines choses, qu'il n'était plus possible donc d'exiger de, de, que des militants d'organisation soient affiliés à un parti politique. Donc le syndicat et la politique ont toujours cheminé ensemble. Mais il faut savoir analyser également euh, le développement et l'environnement global. Et c'est en 2001, lors de ce congrès, que nous avons fait sauter cette disposition de participation responsable. Nous avons fait de la synthèse, l'organisation libre, démocratique, indépendante et autonome. Et cela met tout le monde à l'aise. Mais avant, la synthèse, bien qu'elle était considérée comme un syndicat affilié, regroupait en son sein euh, pratiquement tous les partis et tous ceux qui voulaient être dans une organisation forte, parce que c'était la première organisation. Mais pour atteindre à des niveaux de responsabilité, vous étiez rapidement taxé euh, d'appartenance de, euh, tel que parti communiste ou de ceci ou de cela. Donc je pense là, nous l'avons dépassé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, il faut reconnaître que les citoyens sénégalais, qui sont des travailleurs, qui sont dans les organisations sénégales, ils ont tous la liberté d'appartenir à n'importe quel parti. Ils ont la liberté de faire de la politique. Mais ce qu'il faudrait éviter, c'est de prendre les mots d'ordre des partis et de les transférer dans les syndicats. Parce que ce temps est révolu. Aujourd'hui, il n'est question pour les de, de répondre à des mots d'ordre de parti, c'est fini. Oui. Je pense que ce qui les intéresse, c'est leur gagne-pain, c'est leurs conditions de travail, c'est leur santé, leur sécurité, euh, c'est le niveau de rémunération, voilà un peu. Alors, euh, quel état des lieux faites-vous de la condition des, des travailleurs euh, du Sénégal Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup de, de remous dans, différentes, euh, dans différents secteurs. Alors, euh, quel état Je pense qu'il faut dire quand même que les travailleurs euh, parce que d'abord, vous avez un environnement hostile à, des, à, à, à ce que nous avons vécu. D'abord, la Covid-19, euh, la de Covid-19. Vous avez également la guerre en Ukraine. Vous avez euh, de morosité de, dans, secteurs de l'économie. Donc ces, ces phénomènes-là impactent bien sûr la vie quotidienne des, des, des travailleurs, des travailleuses et des travailleurs. Et je pense que euh, sur ce point, euh, comme vous l'avez vous-même dit, euh, la, la, la, réaction des travailleurs se fait entendre souvent dans certains secteurs, notamment dans le secteur euh, de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur des collectivités territoriales, parce que c'est des secteurs organisés. les gens se battent. Mais vous avez également d'autres secteurs, des gens que vous n'entendez pas, n'est-ce pas, mais qui se battent également Le pour... Le secteur informel, informel, qui représente 70%, 70 de l'économie. pratiquement. C'est des femmes, c'est des jeunes qui sont là et qui se battent. Et c'est ces gens-là que vous voyez quand, et qui sont quelquefois dans une extrême pauvreté. Quand vous avez des circonstances, euh, qui se, qui, quand vous avez des événements qui, qui arrivent, c'est ces gens-là que vous voyez, hein, parce que <laughs> je pense que Euh, il faut faire une bonne analyse donc, de notre environnement global. Je pense que le secteur informel également mérite d'être euh, accompagné, d'être soutenu, n'est-ce pas, d'être euh, accompagné par les syndicats, d'être organisé par les syndicats. C'est ce que nous faisons aussi au niveau, au niveau de la synthèse. Vous avez donc dans le secteur, comme vous le dites aujourd'hui, les travailleurs de l'administration, Euh, n'est-ce pas, sont regroupés en collectif, euh, euh, dans les syndicats, eh bien avec tous les syndicats, pour essayer de réclamer quand même une rémunération beaucoup plus équitable au niveau de la fonction publique. Vous avez la santé également, des travailleurs qui sont des travailleurs contractuels, qui réclament aussi des, des, des avantages, comme vous avez aussi ceux du secteur informel, comme je l'ai dit, qui ont aussi bien des droits que tout le monde. et, et qui mérite également un accompagnement de l'État. Et qu'en est-il du secteur privé national, son apport dans l'économie nationale Je pense que nous avons un secteur privé national. Donc, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, L'économie, euh, la croissance, les emplois doivent être également portés en grande partie par notre secteur privé. Et le secteur privé aussi, dans cet environnement, euh, a des difficultés, des réelles difficultés, d'abord par du fait de la pandémie, deuxièmement du fait de cette guerre en Ukraine, troisièmement qui a occasionné également des surcoûts en ce qui concerne euh, le, le, coût de, de, de l'argent pour les prêts, pour les, les taux d'intérêt. Mais l'État devrait également accompagner ce secteur privé-là, n'est-ce pas, pour que ce secteur privé puisse euh, mieux se euh, positionner n'est-ce pas, au niveau national et également aider à booster un peu euh, l'emploi. Et je crois que sur ce plan, l'État devrait donc euh, faire, euh, et je crois que peut-être ça va se faire, parce qu'on avait dit que le président de la République allait recevoir les chefs d'entreprise, je ne sais pas si c'est fait ou non. En tout cas, nous souhaitons que l'État puisse vraiment soutenir encore une fois ce secteur privé-là. Mmh. Vous parlez de travailleurs, et qui parle de travailleurs euh, parle de leur euh, fête Le 1er mai, vous allez sacrifier à la tradition en remettant vos cahiers de doléances au président de la République. Mmh. Alors, euh, actuellement, quels sont les, les, les, les sujets brûlants de l'heure Qu'est-ce que vous allez remettre au président Écoutez, nous, nous avons toujours dit au président, n'est-ce pas, ce que nous avons comme problème, parce que nous relayons toujours les difficultés que nous avons, nous allons reprendre, reprendre encore. Mais il faudrait vous dire que très rapidement, je pense que d'abord, les travaux du secteur privé, vous savez tous que l'État a fait des efforts quand même euh, à, à l'endroit des travaux du secteur public. Les enseignants, les, la, les, la santé, même si ce n'est pas suffisant pour certains, les fonctionnaires eux-mêmes de l'administration centrale, il y a eu des efforts qui sont Mais les travailleurs du secteur privé euh, sont, sont, restés dans, dans, dans, dans l'oubli, dans des difficultés durant toutes ces années. Euh, on a négocié en pour une petite augmentation de salaire, mais depuis lors, rien n'est fait. Alors que euh, ces travailleurs du secteur privé voient du noir. Euh, c'est pourquoi nous pensons que nous allons poursuivre la revendication en cours, parce que nous sommes en train de discuter avec le patronat. Nous exigeons et fermement qu'il y ait des augmentations de salaire pour les travailleurs du secteur privé. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je pense. Nous pensons la prime de transport, parce que tout a augmenté dans ce secteur-là. Nous sommes encore en train de discuter de relever le SMIC, le salaire minimum euh, interprofessionnel. Ça également, nous sommes en train de discuter et nous pensons qu'il faudra arriver à, à, un accord sur ces questions. Deuxième élément, c'est que le, travail du secteur, comme vous avez cité, de la fonction publique, le collectif, nous pensons que l'État devrait regarder, et, en tout cas étudier, n'est-ce pas, cette Vous avez également des travailleurs de l'hôtellerie. Comment peut-on admettre encore jusqu'à présent au Sénégal, ce 21e siècle, que des travailleurs soient encore payés avec des formules d'équivalence, n'est-ce pas, malgré cette conjoncture difficile, que les gens puissent travailler 45 heures et payer 40 heures, euh, n'est-ce pas en fait, 20 euh, heures et quelques d'heures volées dans, le mois. ce qui n'est ina ce qui est inadmissible. Mm. Comment voulez-vous aujourd'hui que dans le secteur de l'hôtellerie, alors que les gens ont fait des sacrifices, ils ont bénéficié donc de l'accompagnement de l'État pour soutenir leur activité, qu'ils aient mis des travailleuses en chômage technique, qu'ils les aient licenciés, alors que la loi dit, en cas de relance, ces travailleuses et ces travailleurs deviennent prioritaires. Ils ont la priorité d'embauche. au lieu de le faire, qu'est-ce que vous faites Vous allez prendre des journaliers bon, à la place de ces gens-là. Je pense qu'il faut au moins faire en sorte que ces travailleurs puissent reprendre le chemin de, de, de, leur, de, leur, poste. Mm. Autant de questions. Vous avez euh, dans le secteur euh, de la santé, je viens de le dire, avec tout, tous les autres secteurs, je pense que vous avez également dans l'industrie des syndicats, euh, des, des, des, entreprises qui sont sur le bout de fermer, euh, sur, le, sur, la, sur le point de fermer. Parce que mm. simplement,

nourrissent le monde pratiquement, mhm. mais nous avons des menaces internes. <coughs> Ces tensions politiques qu'on a vécues, euh, les émeutes de février-mars, tous ces événements derniers, des services fermés, des commerces fermés, euh, des Sénégalais auto-entrepreneurs, parce que c'est maintenant ça la nouvelle tendance, mmh. qui ont mis en place leurs services, tout ça a été saccagé. Mm. Euh, comment mettre euh, les travailleurs à l'abri de tout ça Moi, je pense d'abord que notre Confédération a condamné fermement ces, ces saccages, ces, ces, attaques, ces cambriolages même quelquefois, n'est-ce pas Et nous, nous pensons qu'il faut préserver euh, les, nos biens, préserver les biens de ces Sénégalais qui ont investi pour eux-mêmes et pour leur pays, euh, qui, donnent, qui fournissent des emplois à des Sénégalais et des Sénégalaises. Je pense qu'ils qu contribuent au PIB national. Je pense que nous n'avons pas le droit de détruire tout cela, qu'ils soient français, euh, chinois ou ailleurs, dès l'instant qu'ils ont accepté de, de respecter le droit sénégalais d'investir dans notre pays, je pense qu'ils donnent du travail aux Sénégalais que nous sommes. Et il faudrait donc, en tout cas, éviter de, de s'attaquer à, à, ces, à, ces, à ces investissements-là. Donc euh, ça, c'est une première. Deuxièmement, je pense que euh, en ce qui concerne euh, l'environnement global par rapport euh, à la crise ukrainienne euh, dont vous avez parlé et de ses conséquences sur notre vécu quotidien. Je pense que, comme vous le savez, nous avons connu une crise liée à notre alimentation, à la crise alimentaire, parce que euh, le, la Libye, c'était la, la crise ukrainienne. Nous devons pouvoir tirer les leçons n'est-ce pas, de tout ce qui se passe autour de nous, faire en sorte que nous puissions avoir également une démarche inclusive qui permettrait à tout le monde de comprendre que nous avons besoin de produire ce que nous consommons, oui. de consommer également ce que nous produisons, de mettre l'accent sur la production. On parle de la préférence nationale, c'est vrai, tout cela doit être accompagné sur la base d'un label sénégalais bien connu par tout le monde et soutenu par tout le monde. Faire en sorte également que euh, la préférence nationale, même si on, on, le dit, que ça soit une réalité. N'est-ce pas Mais cette préférence nationale, évidemment, doit, euh, doit s'accompagner d'un respect, n'est-ce pas, non seulement des droits, mm. n'est-ce pas, des travailleurs également. Je pense que tout cela mériterait une réflexion autour de, de tous les acteurs, faire en sorte que l'État également puisse euh, euh investir mieux dans le secteur agricole. Des pas sont faits, il faut poursuivre cet élan-là. orienter aussi nos jeunes qui sont, qui, d'emploi de comprendre que l'agriculture peut nourrir son homme aujourd'hui. Et nous avons besoin de que ces jeunes s'investissent parce que nous avons de l'eau, nous avons, euh, comment dirais-je, de la terre, hmm. nous avons des bras, parce oui. que nous sommes jeunes. Ce c'est un accompagnement avec des investissements, mécaniser notre agriculture, s'organiser mieux. Et pour cela, l'État doit être un bon Euh, manager. Oui. Il nous reste quelques petites minutes, mais euh, Monsieur Modigiro, euh, avez-vous des regrets avec le syndicalisme Du tout. Pas du tout. Il s'assume. En tout cas, je ne regrette rien du tout. Syndicaliste à vie C'était c'est une euh, expérience passionnante, euh, euh pleine de sens également et, et, de leçons. Je pense que je n'ai absolument rien à regretter. Modigiro, syndicaliste à vie À vie, je ne sais pas, non.

Quand, quand vous avez des gens qui étaient en chômage, qui étaient usine fermée pendant deux années durant euh, au chômage avec leur famille dans la plus grande difficulté, vous battez et vous arrivez à leur faire payer ces deux années de salaire, n'est-ce pas, euh, qui sont restés donc sans, sans activité, qu'ils arrivent à rouvrir leur unité de production, mais c'est des... Hein. Quand vous essayez de voir des gargotières qui, qui ne savent pas comment s'organiser, vous les organisez, vous mettez une coopérative, vous mettez un pour leur trouver le financement pour qu'ils se ravitailler eux-mêmes, qu'ils s'organisent en syndicat. Voilà, vous ne a pas, quand vous dites ah, venez, ah. vous avez le droit de vous, de vous, une mutuelle, vous les accompagnez. Bon, on peut pas avoir une plus grande satisfaction. Merci beaucoup, M. Moudi Giro, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mhm. Je, rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. CNTS. Merci Hawali, ah merci beaucoup euh, de m'avoir accompagné comme d'habitude euh, à cet entretien. Oui, c'est un honneur, un privilège, un plaisir et merci encore à M. Guiraud. le plaisir Merci beaucoup euh, à vous, chers téléspectateurs. Euh, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre label TV. Bonsoir.